dal leen ak jàmm wax ci Ahmed Khalifa Niass mi wax Macky Sall ne ko toxalal élection ndax it nag ci contexte bi nga xamante ne bi Sénégal ci la nekk man gisuma ñu organiser ci ay élection Ahmed Khalifa Niass de moo yëkkati kàddu yu nu mel daal di ko wax ki nga xamante ne bi moo di président Macky Sall Ahmed Khalifa Niass kàddu yooyu nga xamante ne bi yëkkati na ko wax ko président Macky Sall ne ko toxalal élection yooyu ñu bëri rafetlu wuñ ko ci ndax nag ñu bëri ña ngi ko cay wax ci keneen mu di président Macky Sall mi nga xamante ne bi moom day daanaka loolu nga xamante ne Ahmed Khalifa Niass wax na ko ko mujjee na ko jëfe fi moom président Macky Sall démb day jëla dogal yi waroon a am le bi dox na diggante gi ñu nekkee fi mu nekk nii moom la bëgg a bàyyi rek ba nu riggal bu ko defee mu daal di organiser ay élection élection reporté daal ki nga xamante ne bi moo di président doxal yooyu la élection te itam li gën a jaaxal askan mooy jàppul beneen date waaye nag daf leen a wax rek ne leen élection yi daal reporté nañu ko ba nu reporté élection yooyu ka ñu gis mu di njiital groupe Walfadjri di Cheikh Niass doom ci Sidi Lamine Niass moom day nee na rus dëgg laa def kersa dëgg laa am ci sama réew waaye tamit ci ki nga xamante ne bi moo di président Macky Sall man nag lii nga xamante ne bi Macky Sall mi ngi koy def te amul kenn koo xamante ne bi yéey nga yàbbi ci wala àddu nga ci mbir mu ñu mel bu fi fekkoon sama baay lii du am moo tax it ki ma faa dëgg mooy sama baay te itam ki ma naw dëgg mooy sama baay waaye nag man xam naa ni ma koy régler mbir mi mooy sama nationalité gi nga xamante ne bii mooy nationalité sénégalaise jël na ko teg ko fi ci Cheikh Niass ci kanamu télévision ca la jàkkaarloo askanu Sénégal daal di jëlub carte d'identité daal di ko xotti tegate ne la daal di ne leen nekkatuma Sénégalais te itam altine dinaa jàkkaarloo ki nga xamante ne bii rek mooy procureur ngi daal di dem rotal sama nationalité sénégalaise ba mu jeex tàkk bulool loolu weesoo itam damay génn réew mi gàddaay dem ca yeneeni réew lii di groupe Walfadjri itam dama koy jaay ndax nag Sénégal buggatuma ko doon bëggatuma doon ab sénégalais rus naa fi mu nekk nii di wuyoo turu Sénégal ak wax wax ci lu mel moo di Cheikh Niass Cheikh Niass ak kàddu yooyu nga xamante ne bi yëkkati na ko ñu bari ñu ngi ciy ay commentaire ñenn ña nga xamante ne bi ña nga àndandoo moom la nga xamante ne bi def na ko ndax ñu bari nee nañu suñu amoon opportunité Cheikh Niass li mu def loolu la ñuy def ndax it nag ñëpp am gàcce ci Sénégal ñëpp rus ay tam ñëpp am frustration ñenn ñi itam bu fekkee ni ña ngay encouragé kii di Cheikh Niass ñenn ñi la ñuy xalaat rek moo di groupe Walfadjri di groupe boo xamante ne bi ka ko sampoon moo di Sidi Lamine Niass te itam ba mu ko sampee ba léegi moom Sidi Lamine Niass daanaka am na ci ay père de famille yoo xamante ne bi ca la ñuy daan seen doole ca la ñuy suturlu te itam boobaak léegi mu nekkoon rek groupe de presse boo xamante ne bi dafay taxaw ngir xeexal askan wi tey jile nga nar a wan gannaaw loolu lépp combat bi nga xamante ne bi sa baay mëne woon na ko nga waroon ko eggali wan ko ginnaaw tëddu Sénégal ngir aw naqar loolu yi daal ñenn ñi xaj na ca la ñuy critiquer Cheikh Niass bu fekkee ne ñu bari ci askan wi itam ña nga moom xamante ne bi def na ko moom Cheikh Niass Cheikh Niass ak dëddu gi nga xamante ne bi moom la nar a dëddu Sénégal ak jaay gi mu nar a jaay Walfadjri ëllëgu wal Walfadjri moom la askan wi ñu ci bari di xalaat ak ña nga xamante ne bi ñoo di ay liggéey kat nekk biir wal Walfadjri wax ci triste nouvelle bi nga xamante ne bi xew na di décès Cheikh Koulibaly mi nekkoon ci groupe bu Pape et Cheikh moo taxoon ñu daan wax naan Pape et Cheikh Cheikh Koulibaly boobu day wuy ji na boroomam demb la ñu ko doon den ñu koy kii di Bouba def na ay révélation yu am solo nee na xew la woon waaye ko daanaka paaba daan gën a fës moom la nit ñi gënoon a ràññee moom la xam te nag confiance bi nga xamante ni bii rek amoon na ko ci paab ñoom ñaar ñoo amoon benn complicité bu doy waar bu ma ndux di dafay témoignage rek ne jot naa liggéey ak ñoom te itam bi may liggéey ak ñoom man de maa ne naa wër groupe paab et ba gis leen ne leen ñëw ñu toog liggéey Cheikh Koulibaly daal témoignage yi ma mën a def ci moom mooy ku baax la woon waaye itam ku amoon confiance ci ab àndandoom la woon nit ku gore la woon nit ku bari woon sutura la Cheikh Koulibaly wuy ji na boroomam Pape et Cheikh wéet na ndax léegi Pape kott la li lee di aw naqar woo xamante ne bi daanaka musique sénégalaise yëpp fi mu nekk nii ñoo ko àndandoo di ko partage wax ci keneen di Youssouma jigéen Ndour ginnaaw décès ajaratu Kiné Diouf Diaga dafa reporté woon rek li nga xamante ni bi mooy grand bal ba mu waroon a tëgg ca Mbour Géej démb 2 février ca la ko doon tëggaat moom Youssouma jigéen ca Mbour Géej ñu gis ne erreur bi nga xamante ne bi daal waa régie defoon nañu ko ba son Faty Ñaami Koyaate mujj ñu ko woon joué loolu lépp Youssou Ndour rattrapé na ko fa nga xamante ne bi moo di grand bal ba amoon ca Mbour ndax it nag Faty Ñaami Koyaate toj na Mbour ñoom ñaar ñu daal di àndandoo di way way yu neex Youssou Ndour mu Sénégal ak Fati Ñaami Koyaate mu Mali de gis nañu le spectacle bi nga xamante ne bii livré nañu ko waa Mbour ge daanaka askanu Mbour ge ñëpp àndandoo di ca bég waaye itam kontaan ci mbég mu yaa waax ci Anta Babacar Ngom mi nga xamante ne bii tey jilee di danu ko arrêté ndax it nag marche boo xamante ne bii sénégalais yaa ngi koy amal daanaka fii ci Sénégal foo sànni mbàttu mu tak tey jëlee askanu ñoo xëy fipp ginnaaw dogal bi nga xamante ne bii président Macky Sall jël na ko ngir daal di reporter élection yi loolu yi dafa mel ni neexul benn yoon askanu Sénégal ñenn ci askan wi day nañu fees ci mbeddi ndakaaru yi dell am bi ña nga tàmbalee ca VDN bu ndakaaru tàmbalee taal ak a toji moomeel la ko waral nag mooy dogal ñu bari gisoon ak jaay doole la ak fuqat yi nag lu dul nguurug yàlla day jeex nguurug yàlla rek moo dul jeex président Macky Sall bëgg a toggaat ci bopp nguur gi lii nag ba mu defee déclaration bi ñi nga xamante ne bii rek mooy waa Pastef ne woon nañ de ñoom bu ñu xëyee par force dinañu mëne li nga xamante ne bii rek moo di seenu campagne électorale ndax campagne électorale bi dafa war a itam dafa war a door kon nag ñoom bu nu xëy ni muy neex mbaa muy naqari dana nu xëy defub campagne li lay waral ñoom Guy Marius Sagna ak seeni ñooñ waaye yëf yi dafa ni dafa mujjee pëcc xoo ndax it nag fi mu nekk ni foo sànni mbàtt rek mu tag ci Ndakaaru am na ay moomeela yu bari yoo xamante ne bi saccagé nañu leen ba pare itam jàpp ñu bari ci ñi nga xamante ne bi mooy ay leader ku ci mel ni Anta Babacar Ngom ci waxtu bi ñuy waxee ak yéen ma nga ca gendarmerie bu Foire wax ci leneen itam lu soxal people di soxna Cheikh Amar Sawo ñu di ko woowee Adama Sylla Adama Sylla moomu day ñu gën koo xam ci Chacha moom Chacha na di def ay révélation yu explosive ci Chacha nee na day ka nga xamante ni moo di Chacha ak audio ya nga xamante ni bii génn na ko la mu yàq Marie Amar jabari Cheikh Amar loolu lépp askanu lëmb la saaga man day man délégué Amar maa ko daan défendre di ko jëlal paar wax ci moom lu baax waaye loolu lépp la nga xamante ni bii def na ko nag muy saaga famille ay audio dinaa ko ko porter plainte te itam ñu wax fan la ko teg moom Adama la ndax moom mi nga xamante ne bii de yàgg naa luubal xaalisu Cheikh Amar moom mi nga xamante ne daan def ay surfacturation ana beeki Cheikh Amar rek daf ne deux cent cinquante millions la ko jënd ba noppi tam teg dil Cheikh amaar boo xamante ne bii Cheikh Amar dootu ko fàtte jël ay millions yu bëri daal di ko investir ci benn projet nga toog ba mu yàgg daan ne ka yoroon projet ba faatu na ba noppi itam Cheikh Amar kenn remboursé wu ko ab xaalisam lii la di loo xamante ne bi kenn dootu ko fàtte ci sunu askan délégué Amar lu mu yàq yàqul sa saar daf koo fàtte wax ci Cheikh Sarr animateur bi ci ITV démb day ab post la def rek ci Facebook di wax ne lu dul nguur yàlla dafay jeex nguur yàlla képp moo dul jeex Macky Sall te ngaa dellu ginnaaw te xam ne dëgg-dëgg fi mu nekk nii sa yëf jeex askan wi doyal nañ ci yow lii nga xamante ne bi def nga ko du dëgg du yoon report élection yi daanaka Cheikh Sarr daal ca la doon wax ne itam d'accord ci am benn internaute boo xamante ni moo bind ci suuf di commentaire ñu di ko wax Bintoula Lyon lu ma muy la mu wax rek mooy jikkoy naafeq ji war nga ko bàyyi Cheikh Sarr ci saa si daf ko daggal aw saaga ndey ca commentaire ya déglu leen jàmm la xale yu góor yi déglu leen waxumbaane yi déglu leen borom kër yi déglu leen ngir teggil leen seeni jaaxle fajal leen seen jàngoro yow mi nga xamante ni da nga néew kàttan yow mi nga xamante ni sàkkara buy dellu di tuuti daf la sonal indil na leen produit bu baax boo xamante ni boo ko jëfandikoo sa aajo daal di faju kër gi neex soxna yi daal di konta bio samsu 100 pour cent naturel ñoo ngi ko defaree ci ñetti gàncax yu ama am solo dafay guddal sàkkara ba noppi di yokku kàttan maanaam ngay sëy baax góor bi nga xamante ni dafa am sàkkara buy dellu di gën di tuuti rek boo jëfandikoo produit bi daf koy gën a guddal ak seen bio samsu yokk sa sàkkara guddal ko ba noppi neexal kër gi ba mu neex lépp ci biir sutura ñu ko jël yépp fu mu toll ni ñoo ngi dégg jàmm ci biir kër yi macha allah bio samsu di 100 pour cent naturel yoo xamante ni ñu ngi ko jëlee ba Kenya bio la boo xamante ni dafa yokk kattan di yokk sàkkara ba noppi di ko guddal bio samsu nga mën ko woo ci 78 708 76